sant naa sama boroom ci li ma nekk Sénégal dëgg yàlla dëkk ci réew bu tudd Sénégal ak askanu Sénégal mu bokk ci fierté bu mag ci mag ndax euh, kuy sénégalais rek yaakaar naa ni tey di nga sikk li ko waral mooy dund nañ crise bi xaw xóot dëgg yàlla àdduna yëpp euh, seetaan nañ coow li bëri woon na trop lu bari yàqu ci ñenn ñi sax ñàkk ci seen bakkan ci yeneen i réew yaakaar naa ni jamono bi ay coup d'état lañ wala laneen lañ doon wax mais crise boobu li ci am solo mooy institution yi ñoo ko ànd parce que démocratie boobu ak crise ak conflit ñoo ànd parti politique yi bu ñuy jàngante loolu conflit la candidat yi bu ñuy jàngante loolu conflit la institution yi sax mën nañ conflit comme le président de la république le conseil Consulat. mais faire ba institution yi di arbitrer conflit c'est loolu démocratie ndax bu ko institution yi arbi arbitrer l'armée ku mel armée mën na ko arbitrer boobaa da ngay ci démocratie élément extérieur qui est arbitré. arbitrer boobaa da la démocratie mais tant que institution yi rek mi conflit on est toujours dans la démocratie et crise bi ñu acte quoi? ko atte mooy institution acte atte bu mujj bi nag nga xamni ni cour constitutionnel bi mën nañu wax mujj bi nga xamni moy askan wi moko mom askan wi moy atte candidat yi mooy atte parti politique moy atté atte débat bi fi amone yépp nan la koy atte mom rek moo am sañ-sañ fal njiit réew tey ji askanu Sénégal génn na image yi ñu gis ci diaspora bi image yi ñu gis ci biir Thiès gi nga xamante ni moom laa jiite image yi nga xamante ni gis nañ ko ci biir réew mi nit ñi génn nañ revote soo nekkee maire na sa discours discours responsabilité dañu ko mën moom dafa yor ay responsabilité mënta yam discours ak ku yorul benn responsabilité si discours responsabilité war na mën a nekk jàmm la mën a nekk calme la mën a nekk ba ni ñu tàmbalee scrutin bi mu jeexe ci jàmm jeexe ci dal waaye nag ñu dimbali askanu Sénégal ci choix bi mu def ak ku mu mënti doon choix boobu ñu respectel ko ko te ki ñu fal ah ñu installé ko mu dellu ci liggéey parce que loolu rek moo ñuy xaar liggéey ngir askanu Sénégal bi génn ci ak jafe-jafe yi. jërëjëf